ci doxal rek lan la Sénégal yi di xaar mais mel na ku nekk opposition di weddi sa bopp di coow loolu la ñu xaarul ci ñoom. a xam nga doxal lañ bëgg. ñett ñoo yor réew rawatina Sénégal muy bay euh, càmm gi. ak napp gi ak napp gi. Mhm. les de pêche aussi. Mhm. Euh, bari woon na coow. Mhm. tey ji andal nañ lu bëree bëri ñoom it. war a delluwaat ginnaaw xoolaat yëf yi maanaam daal yéen seen nguur gi moom. vraiment xoolal xoolal bu leen ah, déglu dina ne li ngeen. Mamadou Awa Mamadou Awa bëri na. Mamadou woon na coow booy dégg fii ñi ko doon coow tey ñoo yor caabi ji. Mhm. loolu moo tax ma ne la soxlaatul coow réparer en fait ils sont en train de réparer de corriger ñoom donc réparer jarul coow dugg ci biir machine euh, euh, ubbi ko changer pièce soxlawul coow. réparer rek boo taalee oto bi nit ñi dugg dem seen seen yoon donc réparer soxlawul coow. Mhm. dama ne la ñoom ñoo doon coow. ne li bu ñu ñëwee li baaxul li baax yi nee nañ leen jël leen soxlaatul ay coow ak ay mais bul dem di weddi su bopp. doxal lañ leen laaj nañu doxal mbir mi. Mhm. nit ñi teg ci mun a apprécier ne leen lii dox na lii doxul ñun li ñu waroon def def nañ ko. li ñu war a def aussi ñi ngi ci ay opposition mais opposition républicain. duñ ne lii bon na lii baaxul mhm. lii doxul duñ ne lépp doxul. bu ñu tegee lu baax danañ leen macha allah li baax na rafet na bu ñu tegee loo xam ne méngoowul ak gis-gis sénégalais yi danañ ci duut baara ne leen li doxul mais fu mu nekk nii ñoom soxlaatul coow ñoom ñoo doon coow démb sénégalais yi jox nañ leen mhm. ñoo yor lépp jara jaratul coow soxlaatul soxlaatul coow doxal lañ leen laaj ban opposition ngeen nar parce que ñoom ma ne la opposition républicain ñoom ñoo opposition ñoo opposé metti woon na trop ñun du ñu toj mhm. du ñu saaga du ñu xaste du ñu wax kenn lu ñaaw mais nag ku ñu wokk nag ñu xuri la est-ce que vous en avez les moyens. 35 pour cent ngeen am barki dem boo njaay. Sénégalais yi war nañ leen. gën 35 pour cent nag quand même euh, ñoom 54 pour cent la ñu am. Hmm. boo ci dindee 4 points rek te jàpp naa ne PDS am na lu mu néew néew 15 points wala 10 points kon li ñu yor noonu yoruñu majorité boo xam ne ñoom war nañ ci mën a xeex ak ak opposition bi. ah est-ce que vous serez une opposition de proposition. maanaam di joxe ay solution lépp ma ne la lépp loo xam ne solution. ñoo ñun kay solution bu ñu mënuñu passé li ñu leen defal. solution kay mooy yëkkati plan Sénégal émergent ne leen ko ah, ñoom même bu ñu doon ñëw euh, euh, euh, assemblée nationale seen wax yëpp ak li ñu doon wax yëpp man souvent képp ku boo boo interroger tuuti sama vidéo yu passé dama leen doon wax li lépp lu ngeen di wax argument yu ñu doon indi sax ñoom ci plan Sénégal émergent lañ ko doon tibbee ñun li ñu mën mooy yëkkati plan Sénégal émergent bu set wecc jox leen pour ñu doxal mhm. loolu koy jàppale la loolu kay ndimbal la gàcce ngalaama président Macky Sall ak gouvernement dinañu doolaa nañu doxal nañu doxal te wàññi coow jarul coow ay taxal ay coow looloo noonu nañu doxal te it ñun ay républicain lañ mhm. lu baax li ma la wax du ñu kaste du ñu saaga du ñu toj mais kenn du ñu xoqatal aussi ay sénégalais lañ et dañu fier ci nekk sénégalais mhm. kenn mënuñu tiital aussi kenn kenn sunu borom rek lañ ragal. lépp lu ñu war a doxal ra ma ne rapport boo munti indi. Ablaye Sow mi ngi koy wax ma ne rapport bu nit munt indi ci àddina tuumal nit ak fekk mu jëf ko du benn ci réew yoon lañ yor lépp loo xam ne yoon teg na ko ci suñu kaw dañ koy nangu. Mhm. mais nag coow ak kokkatal ak koppaate du paase suñu boor ñun ñii nekk alliance pour la république ku ñu xam xam na ne nag démb nag. yore woon càkk. Mhm. moo tax ñuy bañ yenn xeex yi ndax doo yor càkk di xeex càkk boobu ñoom ñoo ko yor kon kenn mënuñu tiital bu nit xalaat ne mukk am nañu tiituwaay jamais lépp loo xam ne dafay doxal réew mi daf kay jëmale ci kanam ñu ngi ci mais du ci ay xëpp mba ku xatal mbaa leneen noonu non nañ loolu. tiituñu lenn lu dul suñu bopp.